ci lañi la daanu ci ba legi ma ngi ma ngi daanu ci sa kër xaalis rek parce que jamono dafa métti nit ñi dañuy jambata jambata jambata jàmbat ba ba yéemu ci yàlla ma ngi leen di wax na leen sa kër bi ma daanel ak bi may dugg ni kep ku ko ci liggey fa lañ ñëm ci tabaski tabaski lañ jëm nga liggey lañ ko ngeen xol ñaam liggey ñak liggey la ci yamale da ngeen am xar da ngeen am desneer da ngeen am lu ngeen tëralee seen seen njaboot gi ci kattanu yàlla incha allahu taala waye nak ci kanam ma ngi ñew ci yéen graw ci kanam jigen jigéen ñi mënta am doom ak ñi bëgg tukke ak ñi bëgg soxna ak ñi bëgg ñi bëgg jëkkër ak ñaame faru rab ak ñi seen liggéey bu doxut ñi ñu joxut cër ci kër yi allahu akbar waaw ak borom febar yi macha allah waaw ak borom ak ñi nga xam ne tawarikal waaw kon mbokk yi dama ne umu musa la ci tek Ummu Musa, bo xamne ne Habib mulai lay wax dama lay jangal da ngay julli momit ñaari rakka Fatiha ila sar wala neex boo sëlmane nga jang astaghfirullah juróom-ñaar fuk ak juróom-ñaar moy kansu waxandew yalla bi nga jang salatul fatihi kansu juróom-ñaar fuk ak juróom-ñaar nga jang allahu karimu wahidu, jami rasaaku timir. juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ñetti set si ko defee nga dogu andi ismu bi nga jàng nag allahu tam-tamasu téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent nga dégoo indi ismu layil ansam bi nag bu mag bi nga bind nag basiihu baasiin yaa hakuber basiihu san maya su allahu akbar saat la du nekkul siin san maya su laa ilaha illa allah muhammadu man dafa ko say du ma ko jàngale waaw nal waaw basiihu san maya su baa siin su yaa xaa saat nuun miim yaa siin su allahu akbar nga ne basiihu san mayesu su calculer da ngay am 777 777 ñetti sat ngay am mo japp allahu karimu wahidu jaamio razaq mo japp anju <laughs> la ilaha illallah amna lay alquran dim japp me lol taxu ñu jog tay benen yon inshallah allah ci ñëw ci kàttanu sama borom kon mbokki ma waxat ismu bi ngeen dégg ko umm musa pi ñaari rakka ngay julli boo salmalee nga jàng astaghfirullah 77 jàng salatul fatihi 77 jàng allahu karimu waahidu jaami wa rasaaxu 777 juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar su paree nga teg ci allahu tam tama su téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett mooy 158 bu paree nga teg ci basiihu san mayasu 777 su paree nga tëjee ko salaatul faati sakare ba pare na liggéey ba pare na jàngal naa la ko wax na ni nga koy liggéeyee incha allah ñu continuer ba léegi ci beneen ismu laay lansam garaaw ci jamono bii nga xam ne ne ñëpp ko soxla ñëpp soxla ismu ñëpp soxla xaalis mbokk yi ñeenti laayaa ngi nii wa in kullun lamaa jameewoon la day naa muxdaruun 790 la waaye juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ngay bind secret bi bind fa isaahum jamiun la 1439 la waaye 77 nga koy bind wowum lowum jundun maxduuna 577 la waaye 77 nga koy bind wala qad alimat aljannatu innahum la maxdaruun 1289 la waaye 77 nga koy bind ñeenti set soo leen boolandee da ngay am rasaaxu 300000 <laughs> ngay am laaya ji benn bu nekk nga bind ko juróom-ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar nga dogoo ni ismu laay ansam bi bind ko 99 kam xaaleeku saax sasu kam xaaleeku saax sasu danaa la wax nan lañ koy bindee keef miim haa kubeer muy kam ha haa kubeer la nga teg ci laam xaaf buy firi téeméer nag siin su tooy xay ndiigal ñaari sintitoy muy kam xaalaaku saxsasu 99 nga jël loolu def ko saafara di ko raayoo wala nga di ko sangoo di liggéeye nag ismu bi 99 waa ni nga koy liggéeyee nag am na ay tur yàlla yoo koy daanalee sa suuf déglu ma jàngal la ko moo jàpp nag ismu lay ansam cay gannaaw boo jëlee allahu astaghfirullah wa doodu muhiidu jaamiho fataahu rasaqu munhimu waasiho mujiibu xaniyu muxni muuminu baasitu nga jàng ko 45 fois nga dogo andi ismulahi asambi kama alaqu sax sasu kama alaqu sax sasu 99 fois billahi lasi la ilaha illa wa do xamul bindam benn bindam bu la attan bu la bu junni bu xëyal dala gontal nga amee leen Habib moo la wax loolu bismillah ñu continuer temps bi la fan lañ ñëw fan la ñuy ñëw ci ismu lay raxsam bu gaaw da ngay julli ñaari rakka kimiyaawu shahada lañ ko tuddee rakk bu njëkk bi nga jàng faatihatul kitab yaa layta lanaa misla maa utiya qaaroon innahu la suuhasil hasiim juróom-ñaar fukki yoon ak juróom-ñeent nga nga jàngat faatihaatu kitaab benn yoon ñaareelu rakkan bi wa maa yulaqaa illa allazina sabaru wa maa yulaqaa illa zu azrin aziim juróom-ñaar fukki yoon ak juróom-ñeent mooy yohaniidu su ko defee nga sëlmal bii mu nga fusila bii mu nga xasas soo demee ci yaa layta lanaa misla maa uutiya qaaruun mu nga xasas aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent te moom nga koy liggéey te loolu la jàpp nga ñëw si wa maa yulaqaahaa mu nga sortu fusila aaya 34 na leer boo sëlmalee nga jàng faataatul kitab benn yoon sumal istixfaar 1947 beneen yoon danaa ñëw takk loolu lan la junni ak juróom ñeen téeméer ak ñeen fukk ñeen euh, euh, euh, ñeen fukk ak juróom-ñaar xam nga dafa jàpp benn aaya alxuraan bu nekk suratu yaasin ah Babacar xamoon nga loolu <laughs> ah astaxfirullah moo day war استغفر الله بارو استغفر الله 1947 جاب جابنا الله جو نيك زور ياسين ياسين ياسين كرام والله الذي لا اله الا الله اي مبكي تبير ياسين امنا امنا اي بو خنا مو جاب فاتيا مو جاب فاتيا نت دما كوي باني واخ ني ما صرا واي لو كو مو جوخ 1 مليون دما لو كو لا اله الا الله محمد رسول الله الله اكبر ديو دا كنت غير فين مبكي nga tëjee ko salaatul ummi bi mooy allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallim 132 téeméer ak fanweer ak ñaar nga dogo nag indi ismu bi abinda annama kuusin abinda annama kuusi su la neexee su la neexee nga ne abinda annama kuusin man nag benn tomb lay jàng man benn masque Habib Seck moom moom benn masque lay loo lu ëpp ci talsam yi ñaari masque yi lañ koy indi andi woon naa conséquence yi mu la mën a andil ñaari masque yi parce que boo ne ahamun yokk nga ci ahamun gi 45 yok nga ci 50 ci différence ñaari masque dal ñaari masque dal c'est là mhm. ñaari masque yi waaw dansé bu mag a mag bal la ahamu mhm. da ngay am 45 mhm. alif gi 1 la sa ko wer gi ben juróom la min gi du 40 boo ko calculé 45 la ahamu léegi na ah boo ne ahamun nag ahamun yokk nga nun nun ko 50 nga ci yok ñaari masque yi ko indi. Hmm. su boobaa da nga liggéey jëlal ba tey doo gis dara. Hmm. kon daal ñu def ñaari masque nañ ko bàyyi. jàngal yàlla tiifu. Hmm. bañ a jàngal yàlla tiifun yàlla tiifun lan la. kenn xamu ko de. daa sala ñaari masque yi nañ ci def attention. wax naa ko ba sonn nit ñëw na ci man na ma is ismu laay nangam lay liggéey ma ne ko waxal ma dégg. mu naan nangam nangam nangam boo waxee ba pare. ma ne ko rectification baa ngi ci batam nangama nangam. wallahi buñ bàyyee ñaari masque yi ci saltam yi. dañuy dem seen yoon. kon daal kuy def ñaari masque mu du gaaw a dox. daa seetla loolu doo dem fan fajam. kon nag nañ ko bàyyi. nañ ko bàyyi xel incha la si laa ilaaha illa allah mm-hmm. aywa kon mbokk